maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Sow euh, ancien responsable euh, chemin de fer Transaï la li ñu fi jot dajale tey mooy suñu indemnité de yi ñu fay fayagul ba léegi bon mënuñu comprendre boobu ba léegi ñu bañ ñoo fay te du ñu wax du du ñu wax dara waaw toll ci presque léegi àgg na presque trois cent millions bon bu njëkk ba euh, bi daaw bi ñu alerté woo bi ñu jógee fay nañ ñi comment ñaari weer ñi demoon juillet ak ñi demoon août mais depuis booba ba léegi waxatul ñu waxatul ñu lu ci jëm tey ëllëg tey ëllëg tey ëllëg chaque fois da ngay dégg ay ay information boo xam ni bon xam naa marque de fabrique nag gouvernement Macky Sall mooy ñun en tout cas ñun euh, en tant que cheminot ñun manipulation lañ ko gis et dans la vie comme ni Sékou Touré doon wax mën nga tromper une partie du temps rek une partie du peuple mais on peut pas tromper tout le temps tout le peuple. bi liñ ci dafa dafa dafa bi dafa amul sax njariñ d' abord pour ñun terre bi amul njëriñ gar chemin de fer yi ci Sénégal yëpp tëj nañu Dakar Bamako benn train par jour benn train un train par jour ça coûte quarante le mois ça fait un milliard deux cent un train par jour. cest dans les conditions où nous à 20 à l'heure 21 30 nga gis corridor boobu toutes ces villes on été créées à la faveur du train ce président Macky Sall ne comprend pas li mu comprendre mooy du ab ab ab ville mooy créer ay saxaar saxaar mooy créer ville ça c'est basique dans un chemin de fer dëkk yi nga gis Sénégal yëpp yi nekk au sur la voie ferrée chemin de fer moo leen créé mais nga bëgg créer sa ab pôle Diamniadio bëgg a suqali Alstom ak Hollande ne da ngay defar ab train wu 160 à l'heure train wu 160 à l'heure boo xam ni ku ko ku ku ku dul réfléchir rek mooy mooy mën a gëm 160 à l'heure. ni ñu ci dépensé war na mën a suqali DBF. junni yoon mën a suqali mën na waxuma la sax DBF mais mën a suqali chemin de fer Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ba mu des lépp lépp lépp lépp lépp lépp te li ñu comprendre mooy bu fekk comme ñoom rentabilité moo leen intéressé. parce que chaque jour que Dieu fait maa ngi dégg ñu wax croissance croissance lan mooy croissance croissance boo xam ne l'indice de développement humain ñun suñu niveau de vie ça s'est dégradé notre salaire a été divisé par quatre en tant que en tant que retraité benn bi euh, ah, suñu espérance de vie waxi noppi bu njëkk ba daan nga gis ba ku ku ku dem ba ku dem ba cent ans cent et quelque ans c'est rare de voir un cheminot au-delà de cinquante avec sa on ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wax kii alors ko groupe fii ñu toll nii moo doon groupement d'achat coopérative chemin de fer mënoon nga fi jëlee ay tonni ceeb ak ay tonnu tonnu daw li nekk kii tonnu kii to tonnu kii. xeex bi lan la waaw xeex bi léegi mooy dañu bëgg nañ ñu fay suñu xaalis xaalis bi ñuy pasar pasaree ak di ko jox këru diine yi teguñu ko fen fen fen fen fen fen di pasar pasare démb rek la mujj inauguré benn stade un milliard trois cent cinquante millions trois cent millions yooyu mënoon ñoo ñu ko fay ñu tax teqali koog ñun mu dem di ko inauguré stade pour pour pour football te état Mali fay fay na seen cheminot te ñu nekk ci même entreprise xanaa loo dee dee dee dee dee dee dee dee xanaa Mali nag waruñoo gën a gën a kii ni loo wax ñu ni Mali Mali te lépp a gën a yomb Mali. est-ce que président xam na li nekk ci kër gi moo ko tey président Macky moo ko teyaatoo laa la wax moo ngi renseignement généraux yi mi ngeek euh, euh, renseignement yaa ngi ci même même ci biir entreprise bi ñaata miss ñoo nekk Thiès am na ci ñoo am na ci am na ci ñoo ñoo xam ni sax ñii seeni i waajur ay cheminots luñ ñii seen i seen seen i ma seen ay cheminots luñ mais quand le premier ministre parle de DBF d'imbrogglio juridique quand même ça c'est c'est alors que moom ci boppam moo négocie moom moo def la dernière négociation avec Kaba Jaber mais nañ ñu fay suñu xaalis ñun on demande rien on ne commande rien c'est c'est heureux maintenant qu'on ait plus nos vingt ans pour pour pour ñoom parce que ñun bu ñu amoon suñu ñaar fukkat kenn waxatu ko léegi kenn waxatu ko kenn waxatu ko mais gouvernement maki Sall bi vraiment ñun dañ cee doyal sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk da ngeen yëgul seen wet seen rakk yi nga xam ne jamono ji ñoo si kër gi xam nga ñoom itam bala nga ne naam tamit ne fa ñoom itam ñu ngi gis seen problème de dee dafa dee dafa dee carrément lañ leen waxoon yëpp dañ leen doon nax doxandeem bee yàq kër geeg dinañ ko kiyaat ak yooyu yooyu yooyu yëpp ay kàcc la indiwuñ fi dara ñoo yées doxandeem mi fi nekkoon gis nga teer bi nii nii nii nii le le brière de l'île dajoon ci lajoor Joor Macky dina daj lu ko raw ci teer bi man maa leen wax li ah maanaam euh, euh, vingt ans vingt ans la la joo résisté parce que dafa ne gan du tabax mu ne Kajoor bañu ko lekk bàyyi ko wante bañ ko wax ba ko gouverneur bi de dafa dem ba ni c'est pas l'ordre qui va qui qui c'est pas l'ordre déterminer le rail c'est bel bien le rail qui va créer l'ordre parce que pour votre renseignement le chemin de fer a non seulement une dimension économique mais am na dimension d'aménagement du territoire dimension societal ak dimension sécuritaire milliardaires ñuy pasar pasare bu ñu ko yóbbu woon Casamance guerre bi jeex na bu yàgg parce que cheminot fu mu dem takk fa jabar te dafa indi brassage social ah ab joolaa du tiré ci ab ab jarbaatam wolof loolu dafa dafa nekkul su ngeen xoolee fépp fu amul chemin de li tubaab di wax naan particularisme local dafay am économie dafay plombé wu moo am Casamance moo am Fouta moo tax ay affaire projet vallée yooyu affaire u ceeb yooyu muy wax ak yooyu ay naxee mbaay la rek autosuffisance alimentaire ku yóbbu yooyu giléem sukkar saa ngi manqué ku ko yóbbu ba gaaru Ndar tëjee ba léegi ñaata ngeen ma gis un train pour votre information c' est de cinquante camions en terme de concur en terme de transport aucun moyen de transport ne peut concurrencer le chemin de fer nga nekk ab président de la République naan da ngay woote émergence naan autosuffisance alimentaire croissance à deux chiffres di wax da ngay suqaliwaat ceeb bi da nga soxaliwaat suukar si da nga sukkaat loolu ku ko yóbbu xanaa ay gëléem wala ay mbaam saxaar bi moo ko mën a yóbbu